internaute euh, Dakar Actu ñoo ngi leen di nuyu amaat nañ mbégte bu baax àndaat ak yéen comme nuñ koy amalee saa su ne si série entretien yi ñuy amal euh, chaque semaine. tey nag euh, ñu am mbégte bu baax dalal ki nga xamante ni moom moo nekk Souleymane maître Souleymane Ndéné Ndiaye Souleymane Ndéné Ndiaye nag ku ko wax sa xel day dellu. si vous nga xamante régime libéral te maître Abdoulaye Wade jiite woon ko Souleymane Ndéné jot see occupé ay postes yu am solo ay ministre du ministre conseil spécial du président Abdoulaye Wade nekkoon également ministre de la fonction publique ak yeneen i poste ministre nekkoon également ministre de l'environnement Souleymane maître Souleymane Ndéné Ndiaye nekkoon également premier ministre du Sénégal si 2009 ba 2012 laata ñuy perte nguur gi alors Souleymane Dene Ndiaye nekkoon ci parti démocratique sénégalais nekkoon tamit militant bo xamanteni ni ràññeeku woon nañ ko lool te mu jege won ki nga xamanteni ni mo moo nekk maître Abdoulaye Wade Souleymane Dene Ndiaye démissionné ci parti démocratique sénégalais laata muy taxawal parti politique mu tuddé ko Union nationale pour le peuple ci atum 2015 koku moy suñu invité maître Souleymane Dene Ndiaye nuyu nañ ma ngi leen di fay di leen gërëm di nuyu seen également di leen gërëm di ñaan suñu borom mi fi indi feebar bi nga xamné mo moo lëmbee bi mu jëlé ko fi euh, bé réew mi commencé wa dox nim daan doxé avant. si euh, parcours bi ñu complété toujours tay ji euh, Souleymane Ndéné Ndiaye moom mo nek PCA bu Air Sénégal SA. ak lan ngay complété si parcours bi. oui je pense que vous avez été exhaustif. Euh, ndax sama trajectoire yépp wax nga ko leen rek nga waxul mooy man avocat mooy sama liggéey une femme politicien <laughs> d' accord voilà d' accord alors maître Souleymane Ndéné Ndiaye ñu commencé par actualité bi mooy poste PCA bi nga euh, si on se permet de le dire la pandémie Covid 19 t'é euh, salfaañe économie réew dans le monde entier Nous ji nga PCA ñu reprendre li nga les séries de vols ubbi frontières frontière pour certaines destinations alors est-ce que jot ngeen def d'abord le bilan au niveau de Air Sénégal SA pour xam exactement impact Covid 19 bi. waaw suis euh, ngi lay sante bu baax question bi je me pose. Euh, bilan global mhm. mais on a une idée. Mhm. de du nombre de vols il y a un vol Air Sénégal Il y mhm. a Dakar. dem à l'étranger étranger Dakar. il euh, y en a eu 300 d'annulés, 300 vols qui ont été annulés. Depuis le début de la pandémie Depuis le début de la pandémie. Euh, donc, beaucoup, beaucoup chiffré. Euh, man ne sais chiffre bi defaguñu chiffre bi. Mhm. chiffre guñu ko mais. Mhm. Euh, bu un secteur bu pandémie bi euh, vraiment affecté. Le mhm. naa secteur transport aérien et notamment Air Sénégal SA ci la en dehors des vols de rapatriement Organisés nos avions sont restés à terre on en a six. six avions euh, tes vols de rapatriement c'était vers la France vers l'Angleterre vers l'Italie euh, vers le Gabon vers euh, la Côte d'Ivoire mm. sinon nos avions sont restés à terre et nos personnels également sont restés dans le bureau parfois mm. et parfois chez eux parce qu'à un moment donné il fallait pour euh, euh, propagation ferbi. Mm-hmm. que nous def jusqu'à présent d'ailleurs ben, hein? nous euh, conseil d'administration hein? par vidéoconférence. Euh, on en a tenu euh, un conseil, on en a tenu euh, un le 14, hein? à la veille de l'ouverture des frontières, pour dire, évaluer hall, agenda bi, déroulé, le 15 mais le 3 août. na la lan lañ a donc le 30 juillet. Mm. Hein, pour évaluer Watt Hall mm. entre moment où on bi ñu date euh, la compagnie et puis nous projetez-vous encore sur euh, euh, un avenir peut-être pas trop lointain mais mm-hmm. encore plus proche mm-hmm. pour Hall comment la compagnie vit justement la reprise des vols perte c'est les pertes sont énormes mais heureusement que l'État du Sénégal quand même nous avons dit que nous avons nañ ci comme ni mu le secteur du bari. jàpp na ci combat bi. ah jàpp na ci na ci bu d'accord alors euh, maître ubbi nañ une frontière le 15 juillet est-ce que le Japon, c'est le meilleur moment choisi pour ñu frontière Parce que tu gis nga d'abord coow bu mu jur diggante Sénégal ak Union européenne. waaw xam nga euh, loolu kenn ku nekk ak sa xalaat. Mm-hmm. Les autorités politiques, à partir de ay information ne hmm. décision hmm. dogal hmm. euh, à partir d'éléments d'information nous avons am dogal à partir du 15 parce que aussi dans tous les cas de figure possible mënuñoo tëj toog rek tëj Sénégal. Mhm. ne kenn du génn kenn du que dañuy def état d'urgence bo xamné da fay dem ad vitam aeternam. Mhm. couvre-feu bi dem ad vitam aeternam donc. Mhm. Euh, c'est peut-être. ci sama xalaatu euh autorité sanitaire yi. ñi nga xam ne xam euh évolution maladie bi. propagation bi. Euh, ñi muy dal ak euh, fi mu yegg ci réew mi. ñom ñoy jox conseil autorité politique yi pour nous mën éclairer seen décisions à partir euh, des informations sanitaires qu'il vient de fournir. ci sama yaakaaru bopp. Mhm. alors où euh, ubbi frontière yi nag jur na lu bari. absolument xam nga euh, man waxu général de Gaulle waxoon rek la ci moom moom lay toujours. Mhm. les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts. Mhm. gis nga réew yi tubaab yi suñ mënoon doxal seen bir té te ci bolé ñun. Hmm. kon def nañ ko bu ah oui ah oui parce que suñ richesse biñ ko jëlé bu pare. Hmm. ci lañ ñu et pourtant euh, deux premières guerres mondiales yi am mais suñu marié, euh, ils ont payé cher hein, leur vie pour défendre la France et défendre le monde mais gis nga euh, bi fièvre bi tambalé d'abord abord kenn ku nekk da nga da nga replier wu sur toi-même. y mhm. compris même au sein de l'Union européenne. Mhm. dafa mel ni l'union européenne amatul won ndax kenn ku nek da nga fermer ses frontières. ku nekk sa bopp évidemment. Mhm. Euh, ça se comprenait un peu parce que dañ don bagn mu am ay risque propagation fièvre bi. Euh, nit parce que fièvre bi xam nga Mulhouse la jógee. ci France. Ben église bu nekk Mulhouse. fa la ci France. dugu Europe ak dugg France donc zone est en France mu mm-hmm. gënoon a affecté ci feebar bi euh, kon nak, bu fekkee ne ñun ubbi suñu frontière mm-hmm. Union européenne am ay lu mu ci wax jaadu mm-hmm. ay autorités sénégalaises également ne ben avion du jógee Union européenne di terre Sénégal. kon jàpp nga ministre bi moom nu mu doxalee non rek la war a koy féliciter. Ah maa koy encourager maa ngi koy jaajëfal ci décision boobu mu jël parce que nag aussi. Mm. Euh, on est d'égal dignité nous ne suñu avions de terre France nous, nous, ne fulla de France militaire sénégal. Sénégal ministre félicité parce que aussi sa alors euh, monsieur le ministre au-delà de am est-ce que euh, état d'africain war nañ a seeni ba nga ne nous avons par rapport décision suffisamment de solidarité entre nous. secteur hmm. ministre de la pêche. Hmm. avons un accord avec l'union européenne. Et nous avons avons sous commission régionale des pêches. nous hmm. réunir presque pays beaucoup ci UEMOA e UEMOA donc pays qui partage le franc CFA sauf le Cap Vert mais Cap Vert ci ci commission sous-régionale de pêche le bokkoon euh, a un accord de pêche avec l'Union européenne et pourtant Mauritanie a un accord de pêche avec l'Union européenne Gambie a un accord de pêche avec l'Union européenne Guinée-Bissau il y donc un pays qui a un accord de pêche man benn réunion laa ñëw ma hmm. suñu kuréel gi bu fekkee ne mënuñu am politique commune. Hmm. de pêche. Hmm. il faut ñu tas ko ndax kuréel go xamné euh secrétaire permanent bi moy chaque 3 mois mu déplacer réunion bi defee ko praia wala ñu defee ko Bissau wala ñu defee ko Banjul. bu ñu ñëwé on parle dans le vide distribuer ay per diem fay un billet d'avion fay un hôtel hmm. ma Sénégal ak Mauritanie ñoo ëpp ci état yi contribuer presque nous ne doon fonctionner comme sous commission bi fait ne bu pas sous commission bi hmm. il vaut mieux ñu tas tant que nous sommes d'accord nous allons construire ensemble un bloc hmm. de discuter ensemble avec l'Union européenne parce que l'Union européenne bu ñu délégué, ay délégués yu à la fois la Suède la France l'Italie l'Espagne tous les pays qui composaient l'Union européenne à l'époque une mm. délégation moo ñëw di def le tour de des pays d'Afrique di waxtaan ak pays bu ne mm-hmm. xam nañ ne réew yëpp tollowuñu euh, capacité ci ni seen géej amee ay jën mm-hmm. euh, géeju Mauritanie mm-hmm. moo ëpp jën du Sénégal kon nag nañ dem waxtaan ak parce que fekk na boobu du Sénégal ñu yàqu ko par ay moyens de pêche yoo xam yu illicite le, ak yenn xaw a doy donc nañ leen waxtaan ak waa Mauritanie euh, dafa euh, accord de pêche nañ leen ak waa Cap Vert nañ etc. etc. donc man sama position sama li ma xalaat mhm. euh, euh, en Afrique on n'est pas suffisamment solidaire Mon waral souvent duñ bokk gis-gis sax a une instance internationale intérêt mm. est-ce que c'est pas vision politique de tamit. Euh, non vision politique ay ay président yo ne ay président day ngir nga euh, damay joxe rek mm. exemple président mm. la fay Madagascar fay fa waxuma la Mauritanie. Mhm. waxuma la yeneen réew yi nga xamné Guinée Bissau. Mhm. pour fay daay daan na jaral mu jël ay auto jox ko président de la république ba bu fay salaire jotee mu jappalé len pour ñu fay salaire ya donc euh, du affaire ñak bok gis-gis politique. Mhm. affaire volonté la té nak au-delà des présidents il faut voir aussi. Mhm. intérêt au peuple mhm. parce que frontière artificielle yi gars yi créé. Mhm. Angleterre a colonisé Gambie créé frontière entre Sénégal et Gambie portugais yi ont créé Guinée-Bissau euh, français yi ont créé Sénégal euh, xaajale Kok Soudan bi nga xam Mali ont euh, dem coloniser Côte d'Ivoire. Guinée etc. donc vous faites fait ñun. nous le moment du Mamadou Dia bëggoon de la fédération du Mali li ko soxalon boba mo mhm. ñu dajalo ñu def euh, indépendance bu disperser mhm. ñu balkaniser Afrique. Guinée am indépendance bop Côte d'Ivoire am sen indépendance bop ñun Sénégal ak Mali bolé Sénégal Sénégal ak Soudan. Mhm. créé fédération du Mali. malheureusement 1959 euh, lañ ko créé 17 janvier 59 19 euh, août 1960 fédération boobu tass donc il y a un manque de volonté am tout dit, un manque de volonté. d'accord alors moi hmm. euh, malheureusement euh, dina ma parce que bi may l'université, euh, université. Hmm. ci cours intégration économique africaine y avis, ay phase le professeur Makhtar Diouf Djangal. Hmm. d'abord il faut que y ait une monnaie commune. monnaie commune euh, c'est une monnaie qui est commune à huit pays huit. Nous avons une monnaie mais vous savez quoi tous les pays d'Afrique de dañu manko sous mm. l'égide de l'Union africaine nous mm. avons une seule et même monnaie Il y a d'abord na D'abord, a jox doole doon na mm. monnaie boobu te euh, marché créé les euh, petits marchés là CEDEAO CEMAC etc. L'eau également faut restreindre mhm. zone d'évolution liberté mhm. pour circuler et s'établir librement dans chaque pays d'Afrique mesure que au sein de l'Union africaine pour que nous mettre en pratique mhm. euh, pour euh, que euh, intégration mais tant que kenn ku nekk yaa ngi tal sa euh, intérêt bopp euh, loolu du dem. d'accord waaw monsieur le ministre ñu des toujours si euh, Covid 19 bi parce que sonal na nit ñi ah, quoi qu'on puisse dire sonal na nit ñi alors tey ji gis nga autorité sénégalaise yi.

di ndambe mm-hmm. pont Google Tapé, mm-hmm. euh, euh, canal mm-hmm. mais ça à 20h. duñ mëna jaay duñ mëna liggéey ñuy le salon de coiffure salon de couture yi donc euh, mesures mesure yoyu amna ay incidences négatives ci fonctionnement économique. bi mais jàpp ma liñu def dañoo lajj. te it Covid bi taxna ñu relever plateau technique yu yenn hôpitaux yi ndax gannaaw bi kenn ci sen euh, njiiti yi kër docteur yi defee tout. ba wax euh, amna ay saafara yu ñu indi ba moo waral tay ñu mëna a hospitaliser nit Kaolack mën ko mën ko def zigen Ziguinchor mën ko def ci yeneen. parce que. Euh, faire le a commencé plus de 8000 et quelques cas même si on a plus de 6044 euh, personnes guéries du Covid. D'accord. alors monsieur le ministre partage votre avis mais relâchement forme de démission que vous <coughs> alors relâchement bi bu euh, population population relâchée. est ce que l'autorité aussi non autorité Autour de il faut que nous essayions de vivre avec la maladie hmm. mais nous physique mais nous hmm. Nous suñu observe distance physique entre nous nañuy un masque hmm. Nous bañ di nuyowante Nous raxasu à tout moment ku sentir sa yaram hmm. ne am na ay coppite yaa ngi sëqat wala sa température ngi élevé demal kër docteur sa district santé bi la gën a jege autorité mu mënuñ def lu weesu loolu barki démb damaa dem ci benn dëkk boo xam ne hmm. gisuma fa ku takk ku takk masque comme xam naa préfet bi dama ko woo ma ne ko ah préfet man de maa ngi ñëw naa léegi sa dëkk maa ngi dem waaye li ma jaaxal de mooy gisuma kenn ku takk masque. foofu nag laa bëgg a wax parce que jël ay mesures tamit baax na mais fexe ba nga xamante ni dañuy top mesures yooyu di xool ndax askan wi ñoo ngi say toog mesures yi ñu jël monsieur le ministre. xam nga lu ma ci tegal. Hmm. mu ne ma euh, xam nga mënuñ aussi à tout moment di appliquer la loi dans toute sa rigueur. Hmm. xam nga dañ ne ku takkul masque ñu alamaan la. Hmm xam ils day day indi ay bundu khatal te daf indi aussi mesures day loxo donc ñu xam finalement ban pédagogie lañu utiliser dañuy dem ci yi di waxtaan ak askan pour ñu xamné li gouvernement bi di jël comme mesure lim leen recommander pour ñom la pour seen wërgu yaram la pour la mais pour indi jafe-jafe wala benn bundu xatal man euh, communication bi elle ne doit pas être interrompue. Mm-hmm. elle doit être continue. Mm-hmm. parce que amna nit ñoo xamné ne ba léegi gëmuñ ne feebar bi d'accord ku wo man booy dem. Mm. nga yóbbaale ay masque fa nga jëm. Mm-hmm. nga may. c'est important. ñuy tak masque dal di di raxasoo gel loolu nga bëgg a wone du tax max du raxasoo gel à tout moment. message bi jàll Beaucoup boo ko defee. Hmm. Euh, yàlla mën la d'accord Il y a mooy wéral hmm. là aussi bu feebar bi di tassaro hmm. japp borom ko dogal. d'accord dem man ci ay dëkk yo xamné fekk nañ <coughs> pardon fekk nañ masque parce que nous gëm nañ ne bi même les ne rien. d'accord Dakar toujours entretien d'actualité nous ñu euh, monsieur le ministre maître alors maître actualité bi tamit question politique parce que xam nga ne nous mais dafa déconfinement politique parce que boo dégloo rajo yi moom tey sujet d' actualité yëpp politique lay doon alors ñu gis euh, parti politique yi xiiroo beeg ŋaayoo bi alors laata ñuy yéegi foofu tamit euh, mettre euh, rapport IGE bi génn na waaw gis nga lu mu fësal mm. si wàllum mal gouvernance si on se permet de le dire alors yow ban jàngat d'abord nga am bon si révélation yu mu génnee IGE ben corps d'élite la bo xamné ne mm-hmm. ña ko composé mm amul ben sikki Nous sommes bind rek deug la lu am lu am rek lañu bind ndax mhm. euh, ay fonctionnaires hiérarchie A1 d'abord mhm. def concours wala ñu doctorat ñu recruter donc ku fa nek rek mhm. da nga am jaar-jaar avant ngay IGE man nek na ministre d'état directeur de cabinet président de la république inspection générale d'État état dépendre qui euh, cabinet président de la république. kon xam nga li ci nekk. xam naa la ca nekk. Mhm. ña fay liggéey ña ca bëri xam de service entre premier ministre. Mhm. IGE mooy toog mon koy xaatim donc corps la boo xam ne. Mhm. Euh, dañ ne renforcer même. c'est ay moyens pour que liggéey bi ñuy def. muy bañ a nekk rapport par an. Mhm. mais muy nekk benn rapport tous les trois mois. loolu dana tax autorité bi décidé mhm. xam tous les trois mois. Mhm. Euh, li xew. lan la. mais xëy na moyen état yi ñoo ko matewul. mais mënuñoo yokk personnel bi tellement te mënuñoo aussi euh, di leen sas liggéey boobu parce que bariwuñu te ñoo war a wër direction yëpp ak ministère yëpp saytu a def un rapport donc l'immédiatement rapport IGE Ben destinataire là moi, chef de l'État vous n'êtes ci le chef de l'État la suite a donné. le président la dépendre président rek mooy dogal ban suite rapport bi IGE def te qui euh, euh, euh, j'ai même oublié le nom de la personne qui dirige l'IGE, euh, c'est pas le rapporteur général, en tout cas, qui dirige l'IGE, M. François Collin, hmm. c'est le président de la République. Directement. Directement. Les président mooy va ban suite les jox conclusion IGE def sur chaque rapport. d'accord mais maître li nekk ci rapport yi nañ ci wax nan nga ko

bi le maître des poursuites nous poursuivre rien. quelle que soit l'appartenance politique quelle que soit la personne visée. quelle que soit l'appartenance politique quelle que soit l'appartenance politique. ah oui mais c'est comme ça que fonctionne un état l'État va fonctionner amul xaj Sen, qui kii ku ak ku amul ndey rapport of nak fan la mujj. Mané. ne. Hmm. loolu du euh, anormalisé mhm. ak normalité. mais mais euh, un état doit fonctionner normalement. Mhm. et un état qui fonctionne normalement moi état buy donner suite. Mhm. à des rapports comme ay rapport OFNAC. wala ay rapport IGE. wala ay rapport Cour des comptes. loolu moy état buy fonctionner un état doit fonctionner comme ça man nous sommes sama mais est ce que les rapports, yi euh, nga dégg ko nga donté sax né nga tegoo ci say bët gisagoo ko. Hmm. est-ce que ça montre que Macky Sall a mieux fait que maître Abdoulaye Wade en terme de bonne gouvernance non du ma leen comparer. mais pourquoi du ma leen comparer parce que. def nga ñaari yëpp xam-xam déedéet defuma ñaari yëpp. Ah. moi j'ai vécu sous Wade. oui. Euh, mën naa laa wax. Mm-hmm. diggante bi ma nekkee ministre. Mm-hmm. boobu bi ma jeexal nekk premier ministre. Mm-hmm. li xew ci su gouvernance Wade yëpp.

ay fonctionnaires et agents yu compétents d'abord. mais souvent euh, ministre de président ne ko non euh, dafa am ay affaire luubalu xaalis. boo waxee affaire avons xaalis rek ah, inspection générale d'État ou wala cour des comptes ñu saytu ko xool donc loolu mën naa def seere boobu ndax lu ma dund la. si président Wade si président Wade. président Macky Sall euh, régime am bokkuma ci xaw ma nu muy donc aw ma benn commentaire bu ma ci def. nommé na la de pourtant. man PCA la PCA Air Sénégal. Hmm. Air Sénégal euh, bu fekkee ne am na fa. Hmm. Euh, lu fa lu fa doxul. Hmm. mais dañuy toog réunion soulever ko jël décision jël dogal. danañ ko doxal bu demee ba am ay jafé jafe daje bi président de la république ci bop mo koy présider. ñu jël ay dogal té amna fay dogal ñu fa jël yo xamné euh c'était pour redresser la compagnie. ndax buñ ko jëlul won boobu compagnie bi daanu na bu yàgg. Amna nañ yaakaar xeyna compagnie bi mo ngi sur la bonne voie en ce moment kon mën nañ jàpp ne sa nomination moom du du affaire politique mais. Euh, xëy na parce que am na ñu ko yaakaar mais. non suma nomination mën naa am kenn tam mën ta wax sax ne du affaire politique. Mm-hmm. parce que mm-hmm. waaw euh, président Macky Sall dafa ñëw jaale si suma xarit. suñu mm-hmm. xarit buñ bokk Samuel Sarr. ci kanamu àddina yëpp. mu ne mu wax bi mu jaalee ba noppi. ne léegi dama bëggoon na ngeen may ma. mu ngi togué ni ma tok légèrement à gauche dend ak Oumar Sarr mhm. euh, maître Amadou Sall ak ñenen mhm. mu ne ngeen may ma ma waxtaan ak suma xarit suma doomu ndey Souleymane Ndéné Ndiaye xamna naa ne am parti politique mhm. man amna parti politique mais dama bëgg mu ñëw jappalé ma ci limay liggéey Sénégal alors bu wa président la République wooyee ngir li muy liggéeyal Sénégal. Mhm. man dama jël intérêt Sénégal tek ko suma bopp. deug bala maa dem. Mhm. euh bala maa tontu li ma wax mhm. euh ma d'abord fekk suma ñima bokal parti. ma fekk len keug ñu tok ba wax len nouvelle bi. man len nak il faut aussi ma consulter ay nit ci Sénégal. laaj leen loolu nuñ ko gissé d'accord ñu jox ma sen sen xalat kenn ku nak jox ma xalatam ñu jox sen xalat aussi. Euh, ma suis un journaliste. Mhm. ne sa position par rapport à appel président bi d'accord donc un lolo euh, ma nek ci li ma compagnie président conseil d'administration. Euh, mhm. ah, premier ministre.

bu mu jëlee nguur gi lancé na la traque des biens mal acquis. waay mm, am na ñoo xamante eh, nañ leen. tëj si mm-hmm. kaso bi laata ñu leen di génnee exilé dem nañ batay tey ñëwuñ. Euh, si leneen président aussi euh, peut-être justice bi la jël nañ mesure que saisir ay meubles lu ci ni immeuble yi nga xamante ça appartenait à Bibo Bourgi alors tey ji même ban commentaire ngay def si décision bi ñu jël ngir jaay meubles yoy alors xam nga euh, je suis un peu gêné de hmm. parler de cette affaire-là. Pourquoi euh, Je faisais partie des avocats de Karim Wad. Je ne avocat de Karim Wad mais en une position. Vous avez une position que je défendre. Le loup, je ne le défendre. Karim Wade n'est pas mon ami. Hein. Hmm. Ah bon Non, pas du tout. Macky Sall, je suis mon ami. Mais oui, mais c'est ce li nga def qui que Karim n'est pas ton ami. c'est pas mon ami mais c'est pas parce que partagé partage avec gouvernement. Mhm. que mon nekk Karim n'est pas mon ami. pourtant jege woon nga Wad aussi. Wade. de ma 17 ans Dougou PDS. donc gravir échelon YUP, mhm. dem ba directoire national UJT. Mhm. Dembe, ba Ablaye Wade jël wetam Nema, kaay na nommé la soo bëggee ñaar. Hmm. benn bi ambassadeur du Sénégal à Paris. benn bi porte parole. ne ma waay boo fekkee ne da ngaa bëgg a def carrière politique toogal suma wet nga nekk porte parole ne ma demal nga réfléchir une semaine. d'accord ma dem réfléchir ñëw ne ko jël naa bi ma tànn porte parole. donc ma nekk ci wetam. Hmm. aussi hmm. mu gis ma may liggéey. di liggéey di liggéey. ba yàlla def mu def ma premier ministre. Macky Sall nag. D'accord. que politique. D'accord. C'est affaire euh, immeuble immeuble affaire immobilier immeuble yi mhm. décision de justice bu tomber ba tombé. a mhm. des conséquence Si vous la condamné. Mhm. à payer. des sommes d'argent, Les euh, li ñuy def saisir ses biens ak ku mënta même état vous ko même vous faites euh, exécuter par la force état. Euh, c'est un mauvais exemple. Mhm. mais en tout cas un particulier à comment te doon. Vous mhm. condamné au civil ou au pénal. Mhm. à payer de l'argent à un créancier ou à quelqu'un euh, qui te poursuivait en justice. Euh, pour recouvrir xaalis Vous Vous bien. mais bien dañuy du jaay. mais am amu beneen commentaire bu mu mën a def nag ndax. man avocat Karim Wade laa woon. mënuma mm. euh, nekkoon avocat Karim Wade démb. Mm. bëgg tey may. du di wax ay wax le jëme ne ki euh loolu duma ko def. je préfère ne pas avoir à commenter ces ces affaires là. Mm-hmm. mais mais maître euh, euh, on peut pas ne pas commenter hein euh, il faut que ñu wax ci traque des biens mal acquis bi gis nga au début la liste était longue te ñew nañ japp Karim Wade. Euh, condamné nañ kii Bibo euh, bourse ñu japp né fofu la yem déggatuñ keneen ku ñu. ah dem la ngeen laaj président Macky Sall tax. ñu mais yow c'est d'abord à abord buñ ci ñëwé woon. génn taxaw dóor sur la table la ñëpp ah. xam nga man luma d'accord d' ah. euh, enquête moy précédé arrestation. dëgg. je vais vous j'ai vais vous un livre. Mm-hmm. que je lis depuis quelque temps. Juger et préjuger. Mm faut jamais avoir de préjugés sur quelqu'un avant de mener enquête. Mhm. avant de jàpp il mhm. faut d'abord enquête. gis nga enquête de gendarmerie. Mhm. code de procédure pénale utalu ko limite. Canaré. dès délai prescription yi nga la loi est fixée, euh, contravention ça se prescrit sur un an. délit bu détournement de deniers publics sur 3 ans. Mhm. détournement de deniers publics sur 7 ans. crime sur 10 ans bu dul mhm. mais bu fekkee ne da ngay def enquête di porter presse. Mhm. boy enquête presse baa ngi taxaw. lu ñu bind ci procès-verbaux gendarmerie mairie, le lendemain ça se retrouve dans la presse ça ce n'est pas une enquête c'est doon porter presse yàq deru ay sénégalais donc yakarna né li li li faussé yëf dès le départ moy hmm. ni ñu doon procédé di euh, manam jobé hmm. ay ño xamné ils étaient présumés innocents jusqu'à ce que hmm. décision tribunal ñoo tomber né dañoo dañ leen condamné mais ñu di leen jobé buñ leen convoqué mais je l'ai dénoncé à l'Assemblée nationale. d'accord euh, Bobo bëggee YouTube D'accord. ma intervention. M. Abdou était premier ministre à l'époque j'ai dénoncé ce fait là. Hmm. parce que c'était un fait inédit. dans l'histoire judiciaire du Sénégal. d'accord est-ce que M. Japon est le yëpp euh, politique là bas non je ne ko pas politique. noo politique. Je li ma koy hmm. euh, dysfonctionnement dysfonctionnement dans le service public de la justice c'est des dysfonctionnements d'accord mais euh, toujours sa rapport avec Ablaye qui est le nga ci parti démocratique sénégalais euh, nga créé sa parti politique a démissionné là, a créé sa parti politique démissionné nga parti bi mais y y un rapport avec am Ablaye ah les meilleurs rapports ah oui Il y a un au téléphone les meilleurs rapports il y a un au téléphone les meilleurs rapports ko ah, ma yaa ngi dem këram. bu baax di ko seeti bu di ko seeti di ko ñaanal yàlla mu gudd fan mënu ma fàtte Abdoulaye Wade su ma doom ci mujj ko tuddee. mais lii xew biir parti démocratique sénégalais noo ko gisee. di ko ñaawlu rek euh, di ko ñaawlu te. Euh, pourtant yaa ko njëkkee. Euh, déedéet. Ah. man yooyu maa ko njëkkee parce que. Euh, yaa njëkk claqué bi sa xam nga doomu aadama bu ne dafa lu mu mën a nangu ak lu muy bañ. Mm-hmm. nit ku nit ku amul looy bañ. Mm. doo nit. waaye bi ma gisee ni lii raam ca ñag ba la jëm. mën mm-hmm. damaa jël samay bagage dem sama yoon. ndax ba may dugg PDS 1978. 78 laa la wax. Mm-hmm. laa dugg PDS. kenn dugaluma fa maa fa dugal sama bopp. ba ma fay génn nit en mars 2015 maa fa la tax comité directeur le sujet moom à l'ordre du jour c'est le choix du candidat du PDS à l'élection présidentielle de 2017 à l'époque on parlait d'élection en 2017 on était en 2015 mais li ma est le jaaxal mooy dañ le congrès octobre 2015 mais subitement le secrétaire général national décidé ne faire koy def ca bés hmm. euh, n'importe quel militant peut être candidat ou présenter n'importe quel responsable ah ben, ah hmm. cëm a na lu hmm. commentaire Mon frère secrétaire général national désigné ay nit Diou, diou, diou, diou, diou, vous êtes chargé de recueillir les candidatures. d'accord alors nous, top, nous app Nous jot candidat ñu rajouter quelques jours. Nous mm-hmm. commençons nous am ay candidats Serigne Ndiaye candidat la woon euh, Amadou Kane Diallo candidat la euh, Habib Sy candidat la mm-hmm. te que PDS. une structure régulière amul fédération nañ euh, euh, nico euh, programme fondamental ak euh, règle PDS yi Nous d'accord ñu bëgg jël parce que am na benn waaye il était au téléphone moo voté. Le département bu ne ñee ñoom ñoo les structures horizontales structures parallèles yi convention des anciens. convention des anciens arabes. etc. etc etc donc ma ma passer rek. dew ma réunion ba parce que xamna la fay xew. la ma doon njort ba mu amé man li xamone naa té je ne suis pas d'accord accord comme nak man d'accord ma té PDS frère secrétaire général national maître Abdoulaye Wad xeyna na na ko ñu bari waye moy njit li té euh règle PDS dañ ko jox doole jo xamné xam ne. doole jooju kenn mënu ko ko euh, contester may donc man du ma fa nekk di xuloo ak xeex. ma fa dugal son bop damay génn damay bàyyi parce que je ne suis pas d'accord sur euh, le choix qui a été fait sur le candidat. point si nga guenné ci la guenné Omar sar tamit génn na taxawal partem mom ak euh, ñu mu àndal tuddee ko ànd suxali soppi nga gisé loolu idée création. mais c'est c'est c'est une bonne idée c'est très bien. Hmm. c'est très bien je connais Omar sar xamna courage Oumar Sarr su ne. Oumar Sarr fait partie des rares responsables du PDS. Hmm. yu mën a d'ailleurs, le frère secrétaire général national ne ko li hmm. monsieur le président amul wala Amna hmm. Omar Oumar Sarr ci la bok d'accord té limay wax. eu une réunion buñu def. bu bu réunion bu doy war keroog ña won na yëngati kàddu wax wul Oumar Sarr a su lever la voix et dire la vérité parce que booba ñu ngi il y a nañ 4 millions de cartes euh, sur 6 millions d'inscrits. quand kon à la cour le président Abdoulaye Wade kenn mënut a fexe ba ne du ko fal au premier tour loolu la ñu gëmloo Oumar président Wade li ñu lay wax ni pas vrai carte yi man maa ko jënd Ousmane Masseck Ndiaye jënd na ci Souleymane Ndéné Ndiaye jënd na ci diw jënd na ci diw jënd na diw jënd na ci boo ça faisait 4 millions de cartes mais du 4 millions de cartes yo xamné dañ ko jënd distribuer ko ay militants. D'accord kon japp nga mën am dara. waxuma ndax dina am dara wala ñak a mën yalla rek moo koy dogal qu'est-ce qui vous dit que duñu retrouver wu ñun ensemble mën nek justement loolu la bëggoon. wax est-ce qu'on peut s'attendre à. mën naa nekk euh, famille libérale. mën nek autour d'un candidat que le président wad lui-même soit mieux éclairé. Hmm. pour appeler à nouveau tous ses fils. Euh, mais autour d'un père PDS euh, nouveau Le mën est-ce que nekkuleen di ci xalaat. Ah, mais non en tout cas xalaatuma ci mais yaakaar nga ni dina nek mais mën naa nekk parce que Oumar Sarr. Hmm. gëj naa ko jot téléphone euh, bi mu feebare. Hmm. woo wootante nañ téléphone Oumar Sarr suma mbokk la. yéen ngi wax téléphone. waaw dañ ne ñoom ñëpp. Hmm. Babacar Gueye bi Baba du non daf ci am xam nga ñun ñi ci yàgg. dañu am ay liens des liens indissolubles. ndax andu démb bu yàgg. coordination des cadres. 89 xam nga ñu daan andi il y a. 89 ak 31 ans bëri na euh, ay nit ñuy depuis époque bobu 32 ans 35 ans duñu xey rek bayyi wante même Si dul gissé suñu gissé rek danañu am luñu waxtaan. Habib Sy habite sur la même rue que moi. Mm. au fond là-bas Oumar Sarr téléphone lay wax maître Amadou Sall dama wax mom téléphone. Babacar Gaye barki démb la ñu mujjee tase suma mbokk la euh, on s'est rencontré il y a pas une semaine. tu vois donc. Hum. euh amna ci ñoo xam ci ñun. Hum. dinañuy gisee dinañuy waxtaan. Hum. Madické est mon ami c'est mon grand frère wax wax na ak bu yàggul quand il a perdu sa sa grande sœur. donc euh, en politique. Euh, il, il, il, il n'est pas prudent de de dire jamais. d'accord li do am. donc mun naa yaakaar man le PDS peut se retrouver mais day que président de Wade déglu nit ñi y monarchique du pouvoir du parti B, mu mu waaj mu bàyyi de xam ne candidat élection présidentielle. ñaan mais ah, il faut nga journaliste Néma, ne <laughs> euh, politique euh. mais ku ku mel ni man ak sama jaar-jaar. Ah. bu ma journaliste laajee ne ma luy sa avenir politique danaa ko aw avenir politique. te pare nga pour nekk candidat fu mu ah oui ah oui. sur le plan financier. non oh, sur le plan financier on n'est jamais prêt. Hmm. mais xam kuy dem élection nag. Hmm. il faut nga def fundraising. <laughs> il faut que à la hmm. euh, am ñu la jàppale. te incha allah. am na nit ñu ma ciblé ñoo xam ne. buñ ca yeggee. Euh, pourquoi pas euh, Macky Sall président Macky Sall mën na maa jàppale euh, président Wade mën na maa jàppale keneen ak keneen ak keneen mën na ma mën nañ maa jàppale. justement fi ngay wax président Macky Sall man foofu laa bëgg jëlee sax parce que am na ñu bëri jàpp nañ ne yow ak président Macky Sall am na lu ngeen di rumandaat si suuf. non kooku nag moom. jàpp nañ ne sax yow yow la ñuy waaj def yóbbu la présidentielle nga nekk. koo euh, xamante ni yàlla nekk président Macky moo lay. ngémb même bu fekkee ne nit ñi. li ma lay wax mooy. Hmm. lii téere alxuraan la barke salaatul fatiha président Macky Sall mënu ma la wax kañ laa ko di gis. wala kañ laa ko di wax ko téléphone tamit euh, président Macky Sall la dernière fois bi ma waxee ak moom téléphone. Hmm. c'était au sujet de Soumaïla Cissé parce que Soumaïla suñu xarit la man ak moom. Mhm. te dafa ñëw au mois de février quelques jours après Modem, début campagne électorale ñu ñu ñu mu am euh, ay ravisseurs yu yu yu mhm. ko donc si euh, on wax rek. Mhm. loolu lañ a wax c'est ngi moom affaire Soumaïla Cissé. ak président Macky Avec Macky Sall. mais tout peut changer entre temps maître. ñëwaguñ 2024 on est aujourd'hui 2022. li ma la mën a xamal daal mooy su ma yàlla mayee fanu gudd. ak mm. wér gu yaram. Mm dina nek candidat élection présidentielle 2024 te ñaan na yalla bu ma ko nekkee hmm. am ñeneen ñuma jappalé ñudul ñu bok UNP bok jëmu ñudul ñu bok hmm. suma parti rek loolu la ñaan yalla sa sa mbokk libéraux yi est-ce que ñom tamit newuñu di mandat que ni waaw nañ fexé taxawal suñu ku nekk taxawal parti à côté. mais loolu yëpp luñ mën a waxtaanee la Souleymane Ndéné Ndiaye mooy dem. mané loolu yëpp lu mën a la fi nekk nii. Hmm. bu gisoon ci ñom ko xamné il est bien placé mieux placé que moi pour être candidat Pour que waxuma candidat gagner. Hmm. mën la soutenir. ah oui oui mën ko mën naa ko yoon président mën le hmm. rek du suma base j'ai une base nationale. ah oui xam nga Je Saalum dama du dos. mais je suis originaire du Jolof et du Walo. c'est la ville de mon cœur donc man responsable national là, vous de vous responsable Goudiri am responsable Salé Matar responsable d'accord Vous avez Cap Skirring responsable d'accord Vous dans le Fouta responsable donc euh, mon ne damay euh, élection présidentielle hmm. di circonscrire sa base ci ben localité ba nga fa nga d'accord mais am des la la ñaan élection que ma gagné Sine D'accord. d' qui mbokk yi seetaan Dakaractu euh, émission bi jeex na maître. Ah, ni nga ko jeexalee. jeex na mais euh, il faut que ñu wax si wàllum justice bi ah. su la neexee waa SYTJUST gis nga grève bi euh, depuis quelques semaines. ñoo ñoo ngi wàcc dama da ngeen ma jox occasion d'abord, parce que dama lire barki démb. Hmm. interview magistrat boo xam ne am naa ci moom cofeel ak respect bu rëy. Hmm. muy Souleymane Téliko. Hmm ndax bi muy ñëw di tambali boobu man fekk na ma nekk avocat ma gis taxawaayam li ñu soxla ci magistrat bu indépendant. Mm-hmm. bu jub buy buy dëggal mu ngi ci moom. moom Souleymane toliko mais damaa dégg mu wax ci euh, dossier Isen abré mm. loo xam ne ànduma ci moom. muy lan. dossier Hissène Habré. c'est dans l'illégalité que Isen abré a été jugé. ah oui dans l'illégalité la plus totale. ah bon parce que. Hmm. traité Bignou pour juger le c'est un traité illégal le ministre de la justice a le pouvoir hmm. dem négocier pour le compte du Sénégal il n'a pas ce pouvoir là il faut regarder la constitution du Sénégal. et ça. Hmm. Je l'ai signalé parce que j'étais député à l'Assemblée nationale. C'est dans le livre de euh, euh, Marcel, Mendy. Donc, vous nous créer les cours africaines dans l'inégalité la plus totale décision pour nous rendre mais elle est inexistante. d'accord ça c'est mon point de vue hein. c'est le point de vue de quelqu'un mhm. qui a été acteur parce que mhm. man. Mhm. beaucoup naa avocat yi Abrey, abré yi nga xam ne gagné cours de cassation au Sénégal nous nous ñu intégré booba suñu euh, code pénal un euh, crime. Euh, de guerre crime contre l'humanité euh, euh, yoyou, amul d'accord Nous réviser. d'accord dugal ko mhm. donc mhm. l'imam ma mhm. traité le Sénégal ne signé na africaine il est illégal parce qu'il n'a pas été signé conformément à la loi seul le président de la République. est habilité à signer et à négocier des traités pour le Sénégal. d'accord si grève justice bi rek en deux minutes. grève justice bi lima ci li ñaan yalla moy ministre de la justice Rencontrer greffier yi ñu def la paix parce que on il n'y a pas de justice. Hmm. sans greffier ni avocat. te nañ bàyyi fantasiro beeg xex beeg yoyu ñoom dal ministre bi la accuser accusé non nañu nañu juboo. Hmm. na leen ministre bi recevoir xam nga lu mu mënta d'accord. Hmm mënuma d'accord nga nekk ministre ak ministre boo mënta doon sa secteur di yëngu nga bañ a recevoir acteurs yi nga ne pat gis na man hmm. boo le premier ministre hmm. su ma dégage L'université, université génn nañ baare nañ lu dowakaam hmm. Cheikh Tidiane Ba yàlla na ko yàlla disponible Si je ko dans la minute qui suit il vient dans mon bureau et on trouve une solution bu le président Wade yëgee lu tax ñu grève ñu ne dañu leen a fayul ils ont raison lay wax ils ont raison d'aller en grève yéen ñi bu ngeen toogoon weer fay leen seen bourse euh, seen famille euh, dañ di affamé mm-hmm. kon leen fay d'accord kon nag euh, li may man ministre de la justice mooy recevoir syndicat yi ak parce que sans waxtaan jubóo du am d'accord nañu waxtaan trouver un terrain d'entente d'accord mais ñu bañ euh, dem ci au forceps. gis nga gis nga doole. d'accord doole. Hmm. yalla rek am doole. d'accord ki am doole tay hmm. ki yaakaar am doole tay bu hmm. euh dana amul woon doole. da doon mais amul doole donc nous sommes niñu waxtaan waxtaan buñ bu rek am. d'accord mais temps bi jeex mais nañ wax ci sujet yu bari lu ci Moustapha Cissé Lo yaa ngi dégg coow Je euh, xam nga man lu suma ma yoon nekkul sama nekku ci waaw. ma man politique nekk tamit. mais mais non man euh, même bu ñu nekkee ci politique moom déedéet man nag ci politique moom. Hmm. li su ma yoon nekkul. Hmm. ah li ma ci wax bariwul. waaw surtout yu demee nii nga xam ne dafa viser ay nit. Hmm. Euh, kooku dama ci maanu daal. waaw ndax euh, sujet yi ñu ci yëkkati awma ci benn maîtrise te jomm naa wax lu ma xamul. yi sax ban révélation la révélation yi ñuy wax si wàllum building administratif bi. non yoyu yep ay waxu euh, Moustapha Cissé le la. Hmm. Euh, ñam ko hmm. euh ils sont suffisamment bien armés et outillés pour lui apporter la réplique qu'il faut la réplique qui sied. japonais nañ ko déglu.

lépp saaga yeeg lépp rek xam nga réew ci normalité la war a doxee benn citoyen amul droit di jël euh, euh, média actuel di di saaga ndey di di wax wax yu ñaaw di tam dëmm kii di tam dëmm kële kenn amul droit def loolu parce que ndey kenn gënul ndeyu ki ci des ku ci ne dafa am ndey mais ça ça peut-être dafa am lu mu doon wax peut-être saaga yi nu ko waxee mais mais mais dafa am lu mu bëgg a wax ma ne Euh, man loolu mënu ma ko défendre ma daal hmm. jàpp naa ne euh, ay surtout ñoo xam ne ñooy ànd hmm. du ñu yeddante ci ay rajo ay télé wala par média interposé jàpp naa ne boo amee loo ko wax ki ngay àndaloon démb ngeen ngeen defandoo ngeen lu nekk hmm. euh, da ngeen di invité wante moo xam ngeen daje restaurant moo xam fu ngeen mën da daje ngeen toog ngeen waxtaan moo gën ngay dem ci rajo wala télé di saga ñu xamné ne euh, leena saga wala ngay wax lo xamné ne mun indi preuve. d'accord parce que nag loo ci mënta dégg aussi lo ci wax. Mhm. te mënuloo indi preuve. <laughs> ngay journaliste ak keneen koo mënta doon dinañ la jàpp man xam nga lu d'accord. Mhm. ñu né yow parce que da nga bëgg euh protéger ses sources. Mhm. que lu la neex nga wax. d'accord ma d'accord ma ci loolu nit lu mu lu mu wax bind ko buñ ko woyé war indi preuve bi. merci beaucoup maître Souleymane Ndéné Ndiaye. man tam ma ngi di sant bu baax di c'était pas trop long mais je pense qu'on a abordé des sujets euh, assez intéressants mm. et je voudrais encore une fois vous féliciter pour euh, le travail que vous faites. Euh, je ne me rendrai jamais sans lire euh, euh, dont le promoteur est mon parent, Céline Diagne, que je salue et félicite au passage, ainsi que vous tous euh, qui participez avec lui à la promotion et à l'essor de ce média, qui fait partie aujourd'hui euh, de notre espace audiovisuel. voilà, par... Euh, la force des choses aussi par la compétence des euh, de votre personnel donc maa ngi leen bu baax ci invitation bi di jégalu nag bu fekkee ne euh, wax naa ci wax ji ma wax wax joo xam war touché na nit ku ma warul woon a touché ci jégalu bu baax. Euh, jugu ngoon pour loolu. am nga interview moom. Mhm. Euh, da wax rek li nga xalaat. waaw d'accord waaw loolu daal euh, laa ko gisee. di leen fàttali rek di ko fàttali sama bopp di ko fàttali askan wi ni daal feebar baa ngi fi que nañu moytu. Mhm. que daal masque yi moom. Mhm. buñ ko di fàtte. waaw boo demee sa gars yi foofu ca télé ba. nga nga ne leen kii yooyu Souleymane Ndéné moo ñu ko baaxee. Hmm? ngeen euh, di ko takk euh, avant ngeen di génn parce que dina leen aar te dina aar aussi askan wi. d'accord ba ci doon seetaan Dakaractu jërë ngeen jëf ñu jox leen dig daje fii ay semaine wala fii ay fan yu néew rek ñu delluwaat si entretien yi. di leen fàttali ngeen takk masque yi ngir mucc ci feebar bi di Covid 19 ni ko Souleymane Ndéné Ndiaye waxee jërë ngeen jëf.